war a tàmbalee ci bopp aaya 134 baada audu billah min alsheytani arrajim wa id ibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni jailuka linnaasi imama قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين الصابرين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمطئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مله إبراهيم إلا من سفع نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه من الآخرة إنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل أرسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتهاجون يحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون alhamdulilahi rabbil alamin noo ngi bàyyi ko woon fi borom bi taala wa tabarak di ñu dénkee ñu ragal ko ba ragal bis ba nga xam ni bakkan du mënal moroomu bakkanam dara bis penc mbindeef mënalul mbindeef dara amul kenn ku am garantie koo xam ni mën na laa garantie ba nga dem àjjana ci coobarem kon nag bés boobu dafa jaadu ñu ragal ci yàlla ñun ñépp ndax kat bis la boo xam ni kullu nafsin bima kasabat rahina borom bi kenn ku nekk la nga def yow yay doon garanti bi beneen bi borom bi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yughni bis penc kenn ku ne am nga fa lu la doy beneen bi borom bi ne yawma yafirru al min akhihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa bani borom bi nee na bis pénc di ngeen dawante kenn ku nekk dana daw frère daw sëram daw jëkkëram jabaram kon nag bis boobu ragal leen ci yàlla ba tax na bu leen ki dig nit lu ngeen mënul bu leen fa wax lu ngeen amul kàttanam yàlla subhanahu wa ta'ala mooy borom bis boobu mooy maaliki yawmi diin bis pénc kenn moomu ko ku dul borom bi borom bi rek moom moo ko moom kon nag baal xel bés boobu ba mooy tax nga ragal borom bi taala wa tabaarak mu bàyyi loolu ñëw ci yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla ibrahim yàlla subhanahu wa taala da ko nattoo mbir te yooyu yépp bim ko koy nattoo fekk na ibrahim nekk mag waaye lenn lu ci nekk bi ko ko yàlla waxee yonent yàlla ibrahima tegu ca baat ibnu abbas radiyallahu anhu ne ibtalaahu llahu bittahaara xamsun fi ras wa xamsun fi ljasad nee na yàlla dafa nattoo yont yàlla ibrahim ci wàllu laab ne ko ñett yi na ko def juróom yi ci sa bopp lay dellu juróom yi ci sa yaram juróom yi nga xamante ne ci bopp lay dellu mooy yàlla dafa sant yonent yàlla ibrahim ne ko nanga wat say naanu moustache dañu koy wat wàññi ko ne ko del gallax foo toll ndax gémmiñ buy tëju lu bari mën naa am xet waaye ne ko del sarax ndiku del soccu del toppatoo sa kawar juróom yi nga xam ni wax na ko ko pour mu def ko te muy dellu yaramam mooy ne ko taqlimul azafir say we dee ko dagg we kenn du ko yar jigéen sax waru koo yar waxantuma la góor ne ko waxal qilaana sa kawaru naq dee ko wat soo toogee weer wat ko góor jigéen ñoo yem kon kawaru naq dañu koy wat ne ko wal xitaan nga xaraf ibrahim dem na baam am juróom-ñett fukki at yàlla doog koo wax na nga xaraf moo tax sunnay xaraf ci yont yàlla ibrahim la njëkkee yont yàlla ibrahim def lu mel noonu beneen bi mu ne ko sa kawari poqataan dee ko wef poqataan bokk na ci kawar gi boo ko ciy bàyyi mën naa am xet beneen bi ne ko boo demee toilette yóbbul ndox moo xam cabinet la walla tuur ndox la yii yépp nag bi ko yàlla waxee yonent yàlla ibrahim tegu ci baat def koo jël rekk jëfe ko daf koo topp def ko yàlla ne ko kon tànn naa la imaam moom la borom bi naan wa idibtala ibrahima rabbuhu fàttalikul ba nga xamee ni sa borom nattu na yonent yàlla ibrahim lan la ko nattoo bi kalimaatin ci ay baat baat yooyu nag ba mu ko waxee fa ca saasa rek ibrahim na matal na baat boobu xam nga ni mag moom juróom-ñetti fukki at nga ni ko xarafalal sa bopp mu jël jaasi ngir xarafal boppam loolu jàmbar dëgg moo koy def daggal sawe sa kawari poqataan sa kawari mustaas yépp nanga ko dagg ibrahim tegu ca baat li ko yàlla wax yépp mu def ko borom bi nag ne ko comme li ma la sant def nga ko qaala borom bi ne inni naka man dey jaaxiluka danaa la def imaaman ngay njiit linnaasi ñeel nit ñi yàlla ni ibrahim comme li ma la wax def nga ko nag man it dinaa la def imam pour nga nekk imaam il faut nga nangu ndigalal yàlla ak santaaneem ay digleem ak i tereem loolu mooy tax nga nekk imaam waaye imaam nekkul ku nit ñi tànn kon ki yàllay tànn mooy nekk imam mooy kan mooy ki mën li ñu soxla te taxaw ci dëggi-dëggi taxaw bi yàlla waxee ibrahim ne ko dinaa la def njiit nag qaala yonent yàlla ibrahim ne ko wa min zurriyati bëgg naa nga boole ci samay doom ñoom it ñu nekk nit nit moom naka jekk lu mu am rek day bëgg doomam am ko su dee président day bëgg doomam remplacer ko su dee borom alal day bëgg doomam remplacer ko su dee borom xam-xam day bëgg doomam remplacer ko moo tax Ibrahim ne ko wa min zurriyatihi wa min zurriyati yàlla booleel sama doom ci imaama gi yàlla na ko ah déet nag mbir mi du demee noonu qaala borom bi ne Ibrahim xamal ne laa yanaalu du jot mukk-mukk ahdi sama kóllëre ak zalimin way tooñ képp kuy tooñ du mën def imam kuy bokkaale du mën def imam kon nag soo bëggee sa doom remplacer la fexeel sa doom mel ni yow waaye bu sa doom melul ni yow bu la remplacer musiba am loolu nag moo dox ci kër diine yi ba indi fitna bu bari fitna bi mooy lan ku dee rek sa dooma lay remplacer moo xam jàng na wala jàngul waaye ku dee rek nga dégg ñu ne taawam mooy xalifa bi moom daan nu mu mënti mel xalifa la te nag su fekkee meloo ni sa baay meloon jàngoo ni sa baay jàngewoon xam nga bu ngeen seetloo léegi li xew dara indiwu ko lu dul ñàkk jàng rek mag ñi ba ñu jàngee démb amuñu woon porte parole dañ daan waxal seen bopp ndax ki jàng dana sawar a wax dana ñemee wax dana wax la mu xam bépp jàngkat du ragal wax waaye nag kuñ ne yaa jiite te jàngoo doo wax da ngay noppi rek parce que amoo loo wax comme nit ñi toog ñii la raw daa bari soo waxee musibaam nga jël kenn ne ko yaay sama porte parole koo gi toog di la waxal rek. kon mbir mi jàng la woon mag ñi ba ñu jàngee ñoo daan waxal seen bopp bi doom yi demee tey nag ba def ko def ko nguur doon nu alal doon nu am-am te nanguwuñoo jàng moo tax mbooloo mu ñëw rek nga joxoñ kenn ne ko waxal mu waxal la loolu moo tax borom bi ne Ibrahim laa yanaalu ahdi zalimin tooñkat yi mu ne ha du ñu am sama kóllëre te mooy duma leen jox benn pal léegi nag borom bi del siwaat ba tey ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa is jaal naa fàttalikul ba ñu defee albayta kaaba gi masaabatan mu nekk delluwaay linnaasi ñeel nit ñi kaaba gi ren keemaan bu rëy moo am màkka ci koor gi bi ñu dalee aj ba léegi daanaka ren la wax ne la ñu seetlu umra wër kaaba gi fees dell ba ñuy wàññi nit ñi ci umra ren bi lañ ko seetlu dafa fees dell dell dell ba nit amul fu mu teg tànkam foo teg sa tànk ci kaw nit nga koy teg loolu nag toujours day metti tubaab bi waaye mënuñ ci daara yàlla moo jël kaaba gi ne wa iz ja'alna al bayta masabatan linnaas yàlla nee na kaaba gi maa ko def delluwaay nit ñi dem di umra ji xanaa xamoo ni al umratu fi ramadan taadilul xaj yonent bi nee na umra ci weeru koor mook aj ñoo tolloo jullit ñi moom tubaab yi bu yaboo ngeen noppalu lu ngeen xeex xeex xeex islaam kanam la jëm amul tànki gannaaw de kanam rek képp ku am rek yaa ngay bëgg a dem kaaba ga yaa ngay bëgg dem umra yaa ngay bëgg a ziyaare kon borom bi wax na dëgg nee na wa iz ja'alna al bayta masabatan linnaas def nañ ko mu nekk delluwaayu nit ñi mu nekk seen weeruwaay nekk fa ñuy boofu dajaloo fa ba pare wa am nan mu nekk sécurité yàlla moo ko def kaaba gi am sécurité léegi nag yonentu yàlla Ibrahim bi mu tabaxee kaaba gi am na benn xeer bu kawe bu mu tegoon tànkam di yéeg pour jot tabax bi loolu bu dee mason yi moom la ñuy tudde safo yonent yàlla ibrahima benn xeer la jëloon teg ko pour jot li muy tabax xeer boobu yàlla fay na ci ibrahim lan la ko ci fay mooy maqaamu ibrahim ci la yonent yàlla ibrahim taxawoon di tabax léegi nag borom bi nee na kon nag ci xeer bi Ibrahima taxawoon di tabax man borom bi màggal naa ko ba yéen jullit ñi kon wattaxidu jàpp leen min maqaami Ibrahim ci maqaama maam Ibrahim mooy fa mu daan taxaw jàppee leen ko musallan julleekaay ku ñëw ci yéen na fa julli ñaari rakka fatiha qul ya ayyuhal kafirun fatiha suratu ixlaas ndax kat ku def lu baax yàlla récompensé la kon yàlla fay na Ibrahim sunna boobu ne ko fi nga taxawoon dinaa ko màggal bu sa tuur kenn du ko fàtte moo tax ku dem Kaaba gi boo wëree ba pare rek sa côté ndeyjoor ma maqaamu Ibrahim ma nga fa jullil foofu ñaari rakka borom bi ne wa naa dénk nañ digal nañ ilaa Ibrahim yàlla nee na maa dénk Ibrahim digal ko moom wa ismail ak doomam ja ibrahim mooy maçon bi ismail moom mooy manœuvre bi kon kii day gaaze di yëkkati birig di jox kii kii di tabax léegi nag yàlla dénk na leen ne leen an ey tahira laabal leen baytiya sama néeg bii laabal leen ko lit taifin ñeel way wëri wal aakifin ak woy buuf yi mooy tey jii boo demee màkk ñépp dañoo itikaaf ña fa dem mooy nga jóge sa kër tëj ko dem màkka war fa toog ba koor gi jeex itikaaf amoo fenn soxla baytil xaram rek nga nekk mbokk yi luy réye ngoog war rukkaayu sujud ak ñii ruku di sujud kon yàlla ne ibrahim yaak ismail laabal leen néeg bi ngir ñi nga xam ni dañuy tawaaf ak ñi nga xam ni dañuy litikaaf ak ñiy julli gis nga loolu keemaan la bu mag a mag sababu nuzulu aaya bii jëlee nañ ci anas ibnu malik mu ne umar ibnu xataab ne waafaqtu rabbi fi salaasin qultu ya rasul law ittaxadna min maqaahima ibrahim musalla fa nazalat wattaxidu min maqaami ibrahim musalla umar ibnul xataab nee na man ak borom bi dëppoo nañ ci ñetti mbir yoo xam ni benn bu nekk dama koo wax yàlla ne nañu ko def allahu akbar umar ibnul xataab ne damaa ñëw fekk yonent bi néegam ma ne ko yonent bi mu ne naam xeer wi yonent yàlla ibrahim doon tabax doon taxaw di ca tabax xeer boobu màgg na de mu ne naam mu ne ko teekoon ñu fay julli ñaari rakka bu ñu wëree kaaba gi ba pare nee na bi ma paree rek borom bi wàcce aaya bi wattaxidu min maqaami ibrahim musalla yonent bi woo Umar ne ko ah li nga waxoon de sa borom far na koo dogal nee na nañu koy def Umar nee na ñaareel bi mani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne naam mu ne ko bu ñu santoon jigéen ñi sa jigéen ñi mën na am ak jigéenu jullit ñi ñuy muuru ndax kat ku nekk day wax ak ñoom góor gu baax ak góor gu bon nee na yàlla wàcce ayatul hijab loolu tamit beneen mbir la mu ne ñetteel bi fekk naa waa kër yonent bi ñu sonal yonent bi ci di ko laaj bëgg ko fitnaal ma ni leen bu ngeen yabee yonent bi yàlla indil ko ñu leen gën yàlla wàcce asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan xayran min kunna muslimatin ba aaya bi jeex kon nag Umar ibnu Xattaab dëppoo naag borom bi ci ñetti mbir borom bi ba tey ne yonent bi wa id qaala fàttalikul ba yonent yàlla Ibrahim ñëwee Makka lan la wax rabbi ey yow sama boroom maa ngi lay ñaan ba ijaal yal na nga def haada lii balada muy dëkk aminan di dëkk bu am kóllëre lu ko sabab mooy yonent yàlla ibrahim dafa am soxnaam muy saarata nekk doomu bàyyi tëxam mu sëyeeg moom diire bu yàgg amuñu doom bi ñu demee Égypte ñu may ko fa benn xale bu jigéen bu ñuy wax Maria alqibtiya Maria moom mu ñëw Ibrahim jël ko am ak moom doom bi mu amee moom doom muy Ismaïl fitna tàmbalee am ibrahim indi haajara ak ismail ci àll boobu di màkka léegi nag bi mu ñëwee indi leen bay ñibbi génn xool màkka muy ay montagne di ay xeer dara saxut fa léegi nag ibrahim di ñaan lan la wax rabbi ay yow sama borom ijal yal na nga def haza lii baladan muy dëkk aminan di dëkk bu am sécurité di dëkk bu am kóllëre waaye warzuqo yal na nga wërsëgël ahlahu waa dëkk bii mina samaraati meññeent lépp luy meññ di sax na ko xéewalal waa dëkk bi xam naa ne du fi sax waaye mën ngaa fexe ba ñam yooyu ñëw fa moo tax boo demee màkka li lay yéem fur wi bu na ci àdduna bi rek danga ko fekk màkka kon yàlla nangul na ko warzuq ahlahu mu ne na nga xéewal waa makka mina samaraati ci meññeent meññent googu nag xéewale ko man amana minhum képp ku gëm ci ñoom billaahi yàlla wal yawmil axir ak bis yàlla ku la gëm yàlla na ko xéewalal léegi nag ibrahim ñaanam mooy képp ku nekk jullit yàlla na nga xéewal borom bi nag di corriger ibrahim qaala mu ne ko wa man kafara ak it ku weddi it danaa ko xéewal man yàlla xéewal moom xooluma ci jullit ak kudul jullit en lekk naan ñépp danañ ko def moo tax mu ne ko waman kafara ak képp ku weddi su ko defee nag fa umatti uhu danaa ko xéewalal xalilan lu néew képp ku weddi dana ko xéewalal lu néew summa ginnaaw ga nag ak tarruhu ma daadi koy lor ila azabi naar jëme ko ci mbugalu safara te wa bi sa bon na almasir mujj ga kon nag yàlla day jox xéewal ñépp mu ne waat yonent bi wa id faw fàttalekul ba nga xamee ni ma ngay yëkkati ibrahimu alqawaida ponk ya minal bayti qawaid moom mooy lento yi mooy poto yi minal bayti ci kaaba gi wa ismailu ak Ismaïl xoola ñoom ñoom ñaari mason yooyu nga xam ni ba ñuy tabax lan lañ doon wax wayuñu tëgguñu feccuñu waaye ñoo nga naan rabbana ay yow suñu borom taqabbal minna yàlla na nga ñu nangul nangul ñu ak ñaan ndax innaka yow anta tigi as-sami' yaay aji dégg al alimu yow yaay aji xam rabbana ay yow suñu borom wajalna yàlla naga ñu def muslimayni ñu nekk ñaari jullit wammatu laka ñeel la wa min zurriyatina ak suñuy njaboot yàlla def ñu ñu nekk ay jullit nga def suñuy njaboot ñu nekk ay jullit ba ñun ñëpp ñu nekk ummatan di ab xeet muslimatan nekk bu gëm yàlla la ka la wa arina yàlla ñoo ngi lay ñaan yàlla na ñu wan manaasikana suñuy jaamuwaay ak suñu jubluwaay su ko defee wa tub alayna yàlla yal na nga ñu jéggal ndax innaka yow yàlla day anta tigi attawaabu yow yaay nangu waakoonuk tuub arrahimu yow yaay aji yërëm yàlla nangul ñu li ñu lay jaamu ndax yow yaay nangu tuub yow yaay yërëm rabbana ba pare Ismaayil ak Ibrahima wax ba tey ne ay yow suñu borom wa baas yàlla na nga yónni fiihim ci dëkk bii ñuy tabax kaaba gi rasulan ab yonent minhum bu bàyyi koo ci ñoom la ñu wax de waxuñu yonent bu jóge Israil wala mu jóge feneen ñëw waaye ñoom waa Makka ñii yàlla na nga yónni ci ñoom yonent minhum bu bàyyi koo ci ñoom ndeke yoo yonent bi mujj ci jamono moom la fa yàlla yónni yatlu muy jàng alayhim ci ñoom ayatika sa aaya yi wa yuallimuhum mu leen di xamal alkitaaba téere te mooy alquran wal xikmata ak sagesse te moom mooy sunna wa yuzakkihim mu leen di sellal yàlla yàlla na nga leen xamal téere bi xamal leen xikma sellal leen yow yàlla ndax innaka yow tigi tigi anta yow al azizu yow yaay aji tedd al yow yaay aji xarala bi ñu ñaanee loolu ba pare nag borom bi kontaan ci ñoom ne léegi nag waman yargab ana kan mooy bañ an millati ibrahim ci ngirum maam ibrahim illa ndare man waaja nga xam ni safiha dof na nafsuhu xelam kenn du bañ yont yàlla ibrahim lu dul ku dof kenn du bañ yoonu ibrahim lu dul ku dof ibrahim mii borom bi nee na walaqad istafaynaahu ca dëgg-dëgg tànn nañu ko moom ibrahim fi dunia ci àdduna tànn nañ ko de ci àdduna moo tax diina islaam du nu fàtte yonent yàlla ibrahim kon nag yàlla ne tànn naa ko fi dunya te wa innahu moom yonent yàlla ibrahim fil axirati ca alaxira lamina saalihin dana bokk ci way baaxi yi yàlla tànn na ibrahim ci àdduna alaxira dana ko boole ci ñi sell ñi tedd ñi baax léegi nag fàttalikul ibrahim id qaala ba waxee lahu ñeel ko rabbuhu boroomam boromam ne ko aslim ibrahim jébbalul tuubal qaala ibrahim ne man de yow borom bi aslamtu jébbalul naa sama jëmm sama bakkan sama xel sama xol jébbal na ko li rabbil alamin ñeel borom bindéef yi léppam da ko jébbal yàlla xam na ni yàlla ko bindam yàlla ko moom kon mu delloo yàlla boppam aslamtu li rabbil alamin léegi nag jébbalu googee mu def moom ibrahim yemul ci moom de waaye da cee yar ay doomam yar ci njabootam yar ci société am kon jullit bi loo munti nekk fexeel ba say jabar gëm ko fexeel ba say doom gëm ko fexeel ba say dëkkandoo xam ko moo tax borom bi ne baat boobu ñu ko waxoon ne ko jébbalul ngir yàlla mu ne jébbalu naa ci yàlla moo tax wa wassaa dénkaane na bihaa ci baat boobu ibrahim yonent yàlla ibrahim jël na lislaam dénku ko baniihi ay doomam nee na leen yéen samay doom dénk naa leen lislaam moo tax yonent yi ëpp yonent yàlla ibrahima moo leen gën moo leen jur mooy seen baay mu ne wasaa biya ibrahim ibrahim dénk na ko banihi ay doomam wa yaqubu yonent yàlla yaqub tamit sëtu ibrahim la ndax yaqub ishaq ibrahim yaqub ku ko jur ishaq ishaq ku ko jur ibrahim moo tax mu ne wa yaqubu yaqub moom it wax na ni dem na bay waaj a dee tëdd ci lalu de ne yaa baniya ay yéen sama doom yi xam leen ne inna allaha naka yàlla day istafa lakumu diina tànnal na leen diina ji kon nag fala tamutunna góorgóorlu leen ba bu leen dee illa wa antum muslimun ndare ngeen nekk ay jullit fexe leen ba bu ngeen di dee dee leen nekk jullit waaye bu leen dee nekk leneen fexeel ba li am solo mooy nga nekk jullit waaye nekk leneen moom amut solo loo doon foo bokk ci koo topp kuy sawaay koo gëm yàlla du la ko laaj yàlla du la laaj loo doon yawmal qiyaam du la laaj foo bokk yawmal qiyaam du la laaj ban këru diine nga jokku këru diine yeeg yooyu yépp xewitu jamono la waaye yonent bi yàlla yónni xamu ko woon te moom la yàlla yónni te moom lay laaj ci ñun yawmal qiyaam bu ñu taxawee tur amatul de fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun gis nga buñ demee yawmal qiyaam tur rekk moo am ak sant ak lan jullit nga wala doo jullit waaye ñu dekki la ne la lan la nga ne yàlla man lii laa woon man ibaadu laa woon wala nangam laa woon amu fa de kon nag benn benn ci yooye amut xam nga lu am ñëwal yàlla nekk jullit te mooy illa man ata allaha bi qalbin salim nga indil yàlla xol bu sell ci bokkaale te la ngay jël nag fexeel ba mu nekk li muhammad indi sallallahu alayhi wa sallam bis boo jëlee lu muhammad indiwul yokku nga sa bopp coono yokku nga sa bopp coow ndax muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla gërëm na ko gërëm na la mu yore yóbbu ko ci ajjana sahaaba yi yàlla gërëm na leen gërëm la ñu yore yóbbu leen ci ajjana kon leneen lu ñëw ci seen ginnaaw bokk ci dañ ko tee sos sos nag ku bëgg a wax ni bu rafet am na nar nga ak caay-caay waaye sos moom benn benn munu cee rafet ndax li rafet yàlla jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax yaqub dénk loolu ay doomam ne leen yaa baniya ay yéen sama doom yi inna allaha naka yàlla day istafa lakumu diina yàlla moo leen tànnal diine ji kon nag fala tamuutunna ngalawaay bu leen dee illa wa antum muslimun lu dul ngeen nekk ay jullit góorgóorlul ba booy dee deewal nekk jullit am kuntum mo ndax yéen da ngeen a nekkoon suhadaa di way seede id xadara yaqubul mawt ba yaqub di waaj a génn àdduna ndax da ngeen koo fekke woon id qaala li banihi yonent yàlla yaqub dafa tëdd ci lalu dee woo ay doomam ñu ñëw mu poser leen dernière question mooy lan lu mu wax is qaala li banihi ba mu waxee ay doomam ne leen maa taabuduuna min baadi waaw yéen samay doom maa ngi leen di laaj ana lan ngeen di jaamu sama ginnaaw ndax yar naa leen teg naa leen ci diine léegi nag li ma bëgg ngeen leeral ma ko lan ngeen di jaamu sama ginnaaw qaalu doom ya nag tontu ko ne ko naabudu yow baay ñun kat danañu jaamu ilaahak sa yàlla ndax kat xamaloo ñu beneen yàlla budul sa yàlla wa ilaaha abaik ak yàllay say maam ak say baay mooy kan ibrahim di yonent yàlla ibrahim ismail ishaq ñooñu day ki nga ñu wax ni moom la ñu doon jaamu ñun moom la ñuy jaamu te kookee danañ ko jàppe ilaahan yàlla waahidan bay benn kon duñu ko utal ndend te wanax ni ñun kat muslimuuna way jébbalu lañu lahu ñeel yàlla kon nag jébbalu yàlla lañ koy defal koo jébbalu ku dul yàlla rek def nga musiba kon nag jébbalu defal ko yàlla ndax loolu moom mooy jaadu moo tax ñu ne ilahan wahida te wanax nu ñun kat muslimuuna way wammatu nañ lahu ñeel ko borom bi naa yéen xeetu muhammad ibrahima day ak njabootam nii lañu meloon kon nag maa ngi leen di fàttali ne tilka loole jàll na de ummatun xeet la boo xam ni xadd ca dëgg-dëgg xalat wuy na la defoon jàll na lahaa ñeel na ko maa kasabat la mu jëf kenn ku nekk la nga jëf yow lañ koy fay yéen it wala kum ñenn leen maa kasabtum lu ngeen fàggu kenn ku nekk loo def lañu lay fay du ñu jël fayug jàmbur di la ko jox yàlla du jël tuyaabay sëriñ bi jox la du jël sa tuyaaba jox ko sëriñ bi kon nag wala tusaluuna deefut laaj leen amma kaanu ca la ñu nekkoon yamaluuna di def ko kenn ku nekk ci nit ñi kat lañu lay laaj mooy la nga jëfe woon waaye nekkal lii walla laa amut solo borom bi ne waqaalu wax nañu ne kunu waay waay nekk leen huudan di ay yahud aw nasaara wala ngeen nekk nasaara te mooy chrétien su ngeen ko defee tax doo ngeen jub yahud yi daal nee nañu ku nekkul yahud wala nasaaraan doo jub borom bi nag ne leen qul waxal yow muhammad ne leen bal li fi nekk kay njub gi dëgg-dëgg bu ngeen koy wër millata ibrahim mooy ngiiram maam ibrahim xanifan jeng wulif lépp lu jàng njub mi daal mi ngi di diina ibrahim te kat moom ibrahim wa ma kaana nekkul min al mushrikina di bokk ci bokkaalekat yi léegi nag xuuloo wax leen aman na dey waay gëm nañu billaahi ci yàlla wax leen ni gëm nañu yàlla wa ma unzila ilayna ak la wàcceef na ko ci ñun lan la ñu ci ñun mooy alquran mooy téere bii ñu wàcc ci ñun yow jullit mooy sa wareef léeg nga gis nit mu sonnal boppam ci lu ko yàlla tegut mën naa teg boppam coono ci yu ko ay mbindeef teg te loolee yàlla du la ko laaj yàlla li mu wàcce yow en tant que jullit muy alquran moom nga war a góorgóorlu xam ko yonent bi li mu wàcce moom nga war a góorgóorlu xam ko ndax ñooy sa farata loolu la ñu lay laaj ci sa bàmmeel moom la ñu lay laaj yowmal qiyaama waaye du ñu la laaj lu ma sàmba wax lu ma dem ba wax kenn du la ko laaj ndax ma sàmba ak ma dem ba yàlla yabalu leen yàlla gis na leen xam na leen doyuñ ko mu tànn leen comme yonent kon ñooñee seeni wax lenn rek moo mën a nekk su ñëwee dëppoog li yonent bi wax a kon fa ay ayni war raas waaye bu ñu waxee leneen mu wuuteeg li yonent bi wax dañu leen di delloo seeni mbir kon nag wa qulu mu ne wax leen ni aman naa gëm nañ billaahi ci yàlla wa ma unzila ilayna ak la wàcceef na ko ci ñun wa ma unzila ila ibrahim ak la wàcceef na ko ci ibrahim wa ismail wa isxaaqa wa yaquba wal asbaati ak sëtiya wa ma utiya ak la joxe foon na ko muusa wa isa wa ma utiya ak la joxe foon na ko annabiyuuna yonent yi min rabbihim mu bàyyi ci seen borom ba tax na ñun jullit daal laa nu farriqu du rafet mukk ñuy tàqale bayna ahadin diggante kenn minhum ci yonent ya te wa nahnu ñun kat muslimun way wommatu lañ lahu ñeel ko jullit day jël yonent yépp gëm leen ndax yàllaa leen tànn ñu nekk ñaar fukk ak juróom yónni leen kon ñamu ca jox téere ak ñamu joxu téere dañ leen di gëm ndax ñoom ñépp ñoo bokk lu ñu leen sant ñoo bokk lu ñu leen wax ñoo bokk lu ñu leen digal yonent bi du ñëw wax lii bee ñëw wax lee déedéet kenn ku nekk day ñëw wax li ñu la yónni mu nuroog la sa morom wax moo tax ñoom ñépp li ñuy wax mooy yaa qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin xayru ay yéen sama nit na ngeen jaamu yàlla ndax amu leen beneen yàlla budul yàlla kon ñun amuñu droit jël Isa bàyyi Muusa wala jël Ibrahim bàyyi Yahya wala jël Yaqub bàyyi yusuf wala jël Ilias bàyyi beneen yonent kon ñoom ñëpp ñoo yem ci ñun ñun waa islaam daal yàlla nee nañu bu leen tàqale yonent yi boo xoolee ñoom yahud lan moo leen alak mooy dañoo jël Muusa ne moom rek ay yonent génne Muhammad génne ñeneen lan moo lor nasaara ñoom it dañoo jël Isa génne Muhammad moo tax seen diine nangootuñ ko moo tax yàlla ne inna diine inda allahi islaam yàlla mi yónni woon Muusa moo yónni Isa moo yónni Muhammad Isa moo ñu gën a jege te bi mu ñëwee daf ñoo wax ni am na yonent buy ñëw seen ginnaaw yonent boobu ismuhu Ahmad Ahmad lay tudd waaw Isa dénk na loolu njabootam muy chrétien yi catholique yi Isa ne leen am na kuy ñëw ku ñu naan Muhammad su ñëwee bàyyi leen li ngeen ma doon toppee ngeen topp ko ndax man ak moom benn lañ ñu ne ko ñoo bañ ñun duñu topp Muhammad ndax Muhammad jaam la doomi jaam la lan moo ko def jaam ndax maamam mi ngi jóge Égypte ban maamam mooy bi ma la sànq muy haajar haajara jaam la bu ñu mayoon saarata haajara jur ismail ñu ne ismail doomu jaam la te ismail ibrahim mooy pappam ñu ne yaayam jaam la ismail moomu moo meññ yont yàlla muhammad ñu jële ca haajara lonku ba ci muhammad ne muhammad jaam la kon du ko topp lii de moo tax seen diine yàqu yahuud lii moo tax seen diina yàqu yàlla nag nañu ñu damay bañ yéen seen diina yàqu waaye yëg leen ni yonent yëpp benn lañ nee leen laa nu farriqu bayna ahadin minhum du tàqale diggante kenn ñoom léegi nag yahud nasaara ku mu munti doon borom bi ne fa in aamanu bis bu nu gëmee bi misli ma amantum bihi lu mel ni la ngeen gëm faqad ihtadaw jub nañ chrétien bi bu ñëwee tuub ne dama bëgg dugg ci islaam wala juif bi ne dama bëgg dugg ci islaam wala athée bi ne dama bëgg dugg ci keroog ba mu ñëwee ne la damay tuub yow imam amoo droit nga ne ko xaaral ba ajjuma wala xaaral ba weer wi dee bakkanam yoroo ko su ñëwee ne la dama bëgg a tuub nga ne ko xaaral ba ajjuma bu dee ci diggante bi yow yaa gàddu bàkkaar boobu tuub nag mooy bi mu ñëwee ne la dama bëgg a tuub nga ni ko lu tax nga bëgg a tuub mu wax la cause yi islaam daf ma neex walla gis naa ni diine ji nangam nangam nangam nga ni ko waaw su dee majeur la nga ni ko islaam day diina la boo xam ni moog yeneen diine yi jiitu ñoo yam benn lañ yeneen ti yépp ci islaam la leen yàlla yónni mu ne waaw nga ni ko bi jiitu mooy nga seede ni amul benn borom bu dul yàlla mooy ashhadu an laa ilaha illa allah boo seedee ni amul benn borom bu dul yàlla nag bu yeboo nga bàyyi bokkaale utal yàlla ndend utal ko moroom yaakaar keneen yaakaar leneen loolu day jeex sa digganteeg borom bi mooy seede ni amul benn borom bu dul yàlla wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga seedaloo ko ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni comme ni mu yónnee woon Isa comme ni mu yónnee woon Muusa su dee chrétien la woon buy tuub nee ko Isa jaamu yàlla la yonent yàlla la waaye du doomu yàlla ëpp na ñuy wax ne Isa doomu yàlla la déedéet jaamu yàlla la yenent yàlla la baat la bu yàlla yebal ci Maryam loole nga xamal ko ko su paree nag nga xamal ko ni julli war na la bés ni ki tay commenceel ngay jàng faatee di ko jàng ngir nga mën a am loo jullee su mënagul faatee buy julli mu yox subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar te muy jàngaale su góor góorlu balaa semaine dana mokkal faatee xamal ko ne nag julli bul def ni julliti léegi yi def de julli tisbaar tàkkusaan génne fajar déedéet jullit daal day julli waxtu yépp lay julli ba mu leer ko ne fu mu toll jullee gën lu mu munti def mu leer ko xamal ko ni weeru koor bu ñëwee jullit day woor de bul ne jullit laa duma woor boole sa bopp jullit ñi yàlla wàccewul kenn koor amul këru diine booy bokk sànni koor bokk ci jullit ñi déedéet bépp jullit buy wootewoo woo jullit génne koor ci ngëm-ngëmam génn ci jullit génn ci julli kooku bokkatul ci jullit ñi lu mu tuddee boppam nag moo tey moo xam waaye bokkatu ci jullit daal day julli jullit day woor bu ko bàyyi mukk mu tuub ba pare gis ni am na ñu nekk ay julli te julli wuñu loolu ci diine ji la nee ko bokkut ci ñoom ñoo ko sos bokku ci diine ji daal ku ci bokk da ngay julli da ngay woor soo amee xaalis nga dem màkka boo amee alal nga joxe azaka yii leeral ko ci boppam ba mu leer baat yooyu mu jéem koo jël kooku bu tuubee jullit dëgg lay nekk jullit dëgg lay nekk waaye tuub boo xam ni du la tax a bàyyi sàngara du la taxa bàyyi fen du la taxa julli yow daal jullit gi li la ci bàyyi muy tur kenn du def lool moo tax borom bi nee na bu ñu duggsee fa in amanu bu ñu gëmee bi misli ma amantum bihi lu mel ni la ngeen gëm bu ñu ko gëmee kon kat faqad ihtadaw jub nañu wa in tawallaw suñu dëddoo joxe ginnaaw bañ a jub bañ a def lii nga leen wax xamal ni fa innama hum naka ñoom kat fii shiqaaqin way nekk lañ ci wuute bu bare bare bari ndax la def ñoo ko sosal seen bopp yow nag yow muhammad dara waru la ca même buñ la fexeelee fa sa ba yàlla dana la fegal seen ay ba duñu la mënal dara ndax wa moom yàlla as-sami' mooy aj dégg al alimu mooy aj xam lu mel noonu nag mooy islaam ba tax na islaam daal sibghatallah mooy cuubam yàlla yàlla cuubam lépp dafa weex boo xoolee couleur yi ci àdduna couleur bu nekk mën nga koo changer yóbbu ko ci moroomam ba mu des benn ban couleur la weex couleur bu weex mën nga koo yóbbu mu jaune mën nga koo yóbbu mu bleu mën nga koo yóbbu mu noir mais yeneen couleurs yi mënoo leen a def ñu weex moo tax yàlla nee na sibratallah loolu mooy couleur yàlla moo tax waa ajjana lu weex la ñuy sol boo solee lu weex day ngay rafet soo deewee lu weex nga sol kon nag couleuru yàlla moo mel noonu mooy ñàkk a bokkaale def lu baax gis ngay lu weex ni mu mel fexeel ba sa xol mel ko fexeel ba say jëf mel ko fexeel ba say wax mel ko ngalawaay bul nekk nit di jaay mbaax te sa xol ñuul kon jullit fexeel ba sa xol weex tal bu sa xol weexee yàlla sopp la nit ñépp sopp la kon borom bi nee na waman ahsanu ana kan moo gën a rafet sibxatan cib cuub mi na laay ci yàlla ku gën a mën a cuub yàlla amut yàllaay cuub jële couleur bu nekk indi ko ci weex su ngeen ko mënee nag def leen ko yéen daal jël lu weex yóbbu ci leneen ngeen mën waaye jël leneen changé ko mu weex mënu leen ko borom bi ne kon nag cuubam yàlla ngoog wa nahnu ñun kat na way jaamu lañ lahu ñeel yàlla léegi nag yahud yi commencé di lay di dàggasante ñoom ak bokkaalekat yi borom bi wax yonent bi ne ko ne leen qul waay waxal ne leen atuhaajjuunana mooy yéen daal da bëgg a ñun fillaay ci yàlla aa ah, dëgër ngeen fit ngeen bëgg yey ñu ci yàlla bëgguñoo ñoo gën a xam yàlla waxal ñu ci yàlla lu ñu xamut ah doy na waar xanaa xamu leen ne wa moom yàlla <laughs> rabbuna mooy sunu borom de ñun gëm nañ ñi wa rabbukum mooy seen boroom yéen kon nag ñun daal wala naa ñeel nañu amaaluna suñuy jëf walakum yéen it ñeel na leen amaalukum seen i jëf ñun daal wa nahnu ñun muxlisuuna way sellal lañ lahu ñeel yàlla borom bi ne ana agna shurakaai an shirk man amila amalan ashraka fihi maiya gayri taraktuhu wa shirkuhu rawahu muslim yàlla nee na man maa gën a doylu ku ñu ma booleel ma bàyyee ko man ñaari sociétaires yi ñuy boole maa ci gën a doylu saa boo jëfee dara boole ca keneen rek ma bàyyee la loolu man duma nangu ñu may boole keneen léegi nag borom bi wax ba tey ne am taquluun moo ndax da ngeen di wax rek ne inna ibrahima naka ibrahim wa ismaila wa ishaq wa yaquba wal asbaata ak sët ya yéen yahudi da wax ni ibrahim ismail ishaq ak ñoom yaqub ak ñooñu kaanoo nekkoon nañu huudan di ay yahud aw nasaara wala ñuy nasaara déedéet déedéet kul waxal ne leen yow muhammad a antum moo ndax yéen yahud aalamu yéen a gën a xam amillah wala yàlla yéen ngeen ibrahim yahud la ku leen ko wax ismail yahud la ku leen ko wax isxaaq yahud la ku leen ko wax qul a antum aalam amillah borom bi ne wa man azlamu ana kan moo gën a mën a tooñ mi man ci waaje nga xam ne katama nëbb na shahaadatan seede mbir xew na nga fekke ko ñu laaj la nga wax leneen yàlla ne kenn dàq la tooñ li nga def tooñ bu rëy la même seede bi bu dalee ci sa papa mbaa sa mbokk waxal dëgg bi yaa ko fekke waxal mu leer waaye nag yaa ko fekke ñu jënd la jox la alal borom bi nee na ku gën a dëng ku nëbbu seede gisuma ko indahu fa moom mina laay ci yàlla borom bi ne wama allahu deet yàlla day bi xaafilin muy sàgganee amma taamaluun la ngeen jëf kenn ku ne la nga jëf yàlla du ko sàgganee xam na ko dara dara du ko ci réer ba tax na borom bi ne tilka loolee ñooñee ummatun ab xeet la boo xam ni xad xalat wéy na ak wéyam lahaa ñeen na ko maa kasabat la mu saag fàggu yéen it waa lislaam wala kum ñeen na leen maa kasabtum la ngeen fàggu léegi daal borom bi ne wala tusaluuna deeful laaj leen amma kaanu yamaluun la ñu doon def